naa di leen bu baax yéen suñu internet di leen nuyu di am contentement jano gi yéen chaque jour nee naa leen mbégte bi nag mooy di leen indi li gën a fas ci bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu borom kër gi di Pape caalis Faye di ko ñaanal jàmm ju baree bari bari daal di ñëw ànd ak ñi ñu àndal ci revue bi chaque jour Mbaye Babacar Assane Waalo daal di leen nuyu ñëw jukkil leen li gën a fës Mbaye nuyu naa jërëjëf Ndeye Mbacke wax nga dëgg mbokki internet yi seen bëgg-bëgg mooy suñu mbégte ñun ba tax na saa su ne ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di am mbégte ak contentement heure bu ñu jàkkaarloog ñoom ngir fas yéene leen a jukkil li gën a fës. ci ëttu yéenekaay yi bind ci wàllu làmb gannaaw ba ñu leen nuyoo am mbégte ak di leen ñaanal weeru kooru jàmm. nuyu naa la. Ah, Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indil leen li gën a fës ci yenn kaay yi. mardi 20 avril 2021 journal suñu lamb moom xëyee ci xëtam bu njëkk kii di Khadim Gadiaga prévient Luc Nicolaï avec ou sans lui Modou Lo Ama Baldé se tiendra cette saison la koy xamal nag moom mu ngi koy dëkku kooku di Khadim Gadiaga Mbaye Babacar. waaw moom day ma ngay ma ngay artu ma ngay artu Luc Nicolaï de moom Khadim Gadiaga moom mi nga xamante ne bii moom mooy président euh, écrit Rock la mu xamal Luc Nicolaï nee na ko noo mën di def fexeel ba boole say buy ak say daqaar tëgg combat bi ci saison bi ndax ñoom dañoo sonn ci xaar bi te ba combat bi taxawee ak léegi yàgg na te léttu leen firiwu leen. dëgg la Mbaye euh, Khadim Gadiaga di président écurie Rock Énergie mu euh, tenir kàddu yooyu ci biir journal suñu làmb nee ne euh, Khadim Gadiaga prévient Luc Nicolaï avec ou sans lui. Ama Modou sa se tiendra cette saison nee na daal mu nekk Luc Nicolaï wala beneen promoteur wala ku man di doon Euh, combat Ama Baldé ak Modou Lo mi nga xam ne ni mooy combat royal bi dina am saison bi nee na moom en tant que président écurie Rock Énergie dina jël responsabilité ba euh, combat boobu euh, tenir saison bi nee na décembre dafa sori torop te ñaari mbër yi ban commencé seen combat bi ba mu taxawee yàgg na jot na nag ñu ko bëre ko te jàll ci leneen. waaw waaw dimbale amateurs yi dimbale mbër yi ndax ba mu taxawee ak léegi yàgg na. ci noonu nag nee na kii di Luc Nicolaï fekkee parewul pour dëgg combat boobu ñoom dinañ xool beneen solution ñu daal di koy def uh-huh. ca noonu Modou Lo Ama Baldé non régularisé aucune date ba combat boobu am na jaaxe Mbaye Babacar ndax dina am ren du am ba léegi ci boobu le la ñuy des Ndeye muy combat ñu tuddee ko combat royal di combat ba nga xam ne mën nañ ne moo gën a mag ci saison bi ren muy Ama Baldé ak Modou Lo suñu làmb ba léegi daf cee des nee na combat bi ba léegi régularisé wuñu ko fële ca CNG kon mën nañ wax ne combat bi ci ay lan làmmiñ lañ koy wax nii rek mais CNG moom reconnaîtreul boobu le combat ndax euh, kii di promoteur bi jaaragu fa def li mu war a def ba léegi tamit ci boobu le combat Ndeye Mbacke mën nañu wax ne amaguñu benn date bu fixé moo tax amateurs yi ak ñi nga xamante ni bi dañuy topp làmb am na nañu jaaxle ci boobu le combat. dëgg la Mbaye Babacar ci combat boobu la ñuy des loolu tax journal suñu ñaaw làmb ne ne non régularisé aucune date euh, calée des inquiétudes planent sur le combat nee ne euh, combat boobu ba léegi nii amoo régulariser gun ko ci CNG waaye jàpp gun benn date également pour tenir ko looloo tax daal ay jiixi jaaxa nit ñi am ko ci diyal boobu war a dox ci Modou ak amaa Baldé combat bi Mbaye Babacar dafa yàgg ñu ngi ko taxawaloon le 16 décembre 2019 boobu la Nick Nicolai jël 20 millions jox ko avance kii di Jules Baldé quatre jours après si leen ko arrêté euh, mu def ay weer après ñu gracier ko au mois de juillet 2020 après mu def benn face à face Modou pour mu mën a waxtaan ak amateurs yi euh, may leen tuuti confiance euh, ñu jàpp ne combat bi dina am loolu mi ngi amee woon le 27 novembre 2020 depuis loolu dara amaatul euh, ba dernière face à bi nga xam ne nii moo waroon am ci Ama Baldé ak Modou Lo ci Sen TV mais malheureusement face à face boobu également dafa raté. mu ngi noonu amateur yaa ngi xaar ñitti làmb yaa ngi xaar. nañu létt mbaa ñu firiñ ndax làmb jul yaakaar naa ne dañoo jàpp ci conc concal kuy daw mbay baaba. ca noonu nag dañuy dem ba géejowaay fekk fekk nga xam ne mooy guy gi kii chauffe rëg-rëg le roi du simpi di guy gi lam ci xam ne nag mooy bu jàppee rëg-rëg da koy daan ci une minute dina ko sëqatal daal di koy duma daal di koy daan ndax kooku teraw koo nelaw Mbaye Babacar olof Njaay dafa dem ca làmba jay bàkku jóge ca làmba jay bàkkoo ko gën guy gi nag moom wax na ay waxam ma ngay yëngal rëg-rëg mu war a jàkkaar lool incha allah nee na incha allah bu arbitre soufflé ba wàccee loxoom génn digganteem ak rëg-rëg ci benn simili bu jàppee Reug Reug du ko may dara ci benn simili dana tàqali ko moom daan ko asa dëgg la Mbaye Babacar guy gi chauffe Reug Reug euh, je vais battre je euh, le baat en une minute noonu la ko journal suñu laamu titré wax ji nag guy gi mi ngi ko tenir ci arène nationale euh, ci dimanche ba le passé combat bi doon dox diggante Cheikh Super Diamono ak capitaine Dina guy gi daal nee ne bu jàppee Reug Reug en une minute dina ko daane dina ko euh, daane ci temps bu gàtt nee na également à chaque fois buy rëg di Reug di def benn sortie da koy tooñ da koy manquer de respect te le jour ji bu dajee wax jooju yëpp Reug Reug di ko wax guy gi dina ko dina ko corriger ba mu xam ne du moroomam te loolu nag ci Gaston Mbengue lañ jëm le Don de la lutte sénégalaise reprend le pouvoir la ca journal bi xam ne na mooy kii di Gaston Mbengue tey war na làmb ji en main Mbaye Babacar gannaaw ba mu taxawalee juróomi affiche asal juróomi affiche ya nga xam ne bu ci nekk rek buñ ci tudd rek nga ne bii moo dàq ba ca des loolu la ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Ligue Nicolas tëgg euh, loolu la def taxawal juróomi affice ya nga xam ne yépp a neex looloo tax ñu tuddee ko le Don King de kon mën nañ wax ne fi mu toll nii asal nekkaat na seefu promoteur yi jëlaat na place bu baax dëgg la Mbaye Babacar juróomi affiche la journal bi wax mais man may wax ne six affiche la puisque tëgg na Balla Gaye 2 ak euh, Bombardier Lac 2 Eumeu Sène Sa Thiès Moussa Ndoye euh, Pakal Forja Modou Anta Diène Kairé ak euh, Balla Gaye boo ñaa bi nga xam ne nii mu ngi ko tëgg ci semaine boobu nee na daal ginnaaw bi mu toogee ay année jógee ci làmb ji ñëwaat na nag en force ñëwaat na pour jëlaat pouvoir bi nga xam ne nii moom moo ko amoon ci promoteurs yi. comme ni ma koy waxee dafa ñëw rek xuuf <laughs> moom pa moom moom père per père Gaston dafa xaw a fuqale nag mayul gars yi dara daa ñëw rek yu baax yi nekk ci kaw ndab li yépp mu coppati mu coppati ko toog duñu xool mu ngi noonu de wallaay waaye nag noonu la nit da ngay bëgg da bëgg sa bopp mu ngi noonu ginnaaw fusion ba am ci écurie Ndakaaru ak fas ñu ngi xëy di xamal seen programme lañ nar a tëralee seen i bay Mbaye Babacar écurie Fass ak écurie Ndakaaru gannaaw ñoom ñaar ba ñu boolee ñaari écurie yi muy benn Euh, boobu ba léegi euh, xam nañ ne ñoom ñaar boole nañu ñaari écrit yi def ko benn écrit léegi nag ñëw nañu xamal ñu bureau bi naka la taxawee Assane. dëgg la mbay Babacar bureau bi ni mu taxawee ginnaaw bi ñu defee benn réunion euh, ci démb ci école bi naan Sakura Badiane bu nekk Colobane la naan def seen réunion pour taxawal seen nouveau bureau boobu bureau boobu nag ki ko jiitee moom mooy Abass Ndoye moom lan fal président Kati Diop moom mooy coach bi. Euh, Abdou Gueye moom mooy directeur technique bi Tafa Gueye moom mooy adjoint coach euh, kii di Kati Diop. Euh, réunion boobu nag mbër yi ko teewoon mooy Forja Giri 2 ak Serigne Ndiaye Giri Bodo bi nga xam ne ni moom mooy ténor bi moom da ko absent da ko woon. ñoom nag ñu ngi prévoir seen première séance d' entraînement tey jii foofu ci te école Sakura Badiane bu nekk Koloban. dëgg la Assane Waane. ca noonu nag après avoir battu Tafa Gueye. Mhm. Papa Sow et Eumeu Sène journal suñu lamb nag la muy samp laaj mooy ndax Gris Bordeaux mën naa arrêté kii di la de Guiers numéro 2 le puncheur de Waalo Mbaye Babacar suñu làmb moo xëy samp laaj Ndeye Mbacke la muy laajte nag ci la deger la jëm nee na gannaaw ba mu daanee dafaa Gueye ak Papa saw ak kii di Eumeu Sène mu ne est-ce que euh, de Bordeaux mi nga xamante ne bii moom mooy euh, Tigre de Fass moom mën naa téye Lac de Guiers 2 dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi nga xam ne ni ténor yu bëri am nañ combat euh, Lac de Guiers ci victoire contre Eumeu Sène euh, comme Gris Bordeaux amagul euh, combat ba léegi loolu tax nag journal suñu làmb def benn interrogation nee na ginnaaw bi Lac de Guiers daane Tafa Gueye daane Papa Sow daane Eumeu est-ce que Gris Bordeaux mën na ko arrêter bu dee seen combat taxaw na parce que temps ñu ngi wax ñu ngi discuter entre promoteurs yi est-ce que mën nañu tëgg Gris ak Lac de Guiers bu taxawee nag journal suñu làmb nee ne est-ce que Gris Bordeaux boobu nga xam ne ni moom mooy leaderu Fass mën na arrêté Lac de bi nga xam ne nii récemment la daane euh, Eumeu Sène ñu fàttali ne Lac de mi ngi am 19 combats 14 victoires 2 nuls 2 défaites benn sans verdict Gris Bordeaux moom mi ngi am 22 combats 14 11 euh, victoires 9 défaites 2 sans verdict. ma ngi noonu nag ci noonu Sa Thiambi Diop la nga xam ne ci journal bi mooy Eumeu Sène. ginnaaw ba mu jógee 4 avril daal di cay lanc ci kanamu ki nga xam ne Lac de Guiers numéro 2 lam gën a soxla nag instant bi mooy psychologue Mbaye Babacar saa bi Diop moo yëkkate yooyu le kàddu nekk fële ca Kaolack ndangaan mm-hmm. di borom xam ba nga xamante ni bii xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu tàggat yaram dëgg la euh, ñëpp ñëpp nangul ko nag nee na Eumeu Sène li mu gën a soxla jamono bi mooy benn benn benn benn benn psychologue ba nga xam ne dina ko andiwaat gannaaw ba mu jógee ci defet digganteem ak Lac de dëgg la Sadio Mbi Diop mi nga xam ne nii benn doyen euh, journaliste la te mu nekk foofu ci Kaolack moom nag benn contribution la def tey ci journal suñu làmb nee ne euh, ginnaaw Eumeu Sène li mu wane combat euh, dernier combat bi moom ak Lac dafa indi benn xar kanam boo xam ne nii xamewuñ ko woon noonu looloo tax nag mu def benn contribution nee na euh, Eumeu Sène benn psychologue la gën a soxla ci làmb ji que ay marabu yoo xam ne nii dañuy lekk xaalisam rek danga koy nax moom nag euh, euh, contribution bi nee na Eumeu pour mu jël Balla Gaye nee na benn suicide la ndax instant yi nekkul en forme pour mën a contenir Balla Gaye Assane di fàttali sàccoom bi borom xam-xam la ba nga xamante ni bi yow da koo faan woyu mbay Babacar euh, texte bi mbind euh, wane na ne borom xam-xam la ban euh, chef d'œuvre laa koy wax ndax neex na neex na liir trop macha allah. macha allah. <laughs> mooy noonu suñu journal bi da ko lire daal di apprécier fañ jëm nag mooy Diourbel ginnaaw Kaolack Thiès bañ taxawalee seen biro du CRG. fecca Diourbel sama dëkk sëriñ ba sëriñ Bassirou Mbacke borom bëgg bëgg taal beeg Mbaye Babacar ma oh, oh, oh, toogal nii taxawal nañ seen CRG mu bokk ci nag ñu koy félicité bu baax baax moom Mbaye Babacar jërëjëf Ndeye ki noonu nga ko waxee euh, CRG bu Diourbel mën nañu wax ne fi mu toll nii taxaw na gannaaw ba ñu toogee weer yu yàgg yàgg di xaar bureau bu bees bi Assane mën hmm. nañu wax ne bureau bu bees bi fi mu toll nii samp nañ ko ki ñu falaat ci bopp bi mooy président bay Diaw ma fa nekkoon moom la ñu delloowaat ndomba tànk gi mu jiite CRG bi kat ki ca topp di Etienne Ngom ki nga di ka nga xamante ne bii ku ñëpp ràññee la ci wàllu làmb. dëgg la Mbaye Babacar comme ni nga ko waxee xamee. Euh, nouveau nouveau bureau bu CRG bu Diourbel dañ ko def mais Euh, mbay Diaw mi nga xam ne ni moo ko yoroon moom reconduire mais nag bureau bi dafa am ay changement yu bëri remaay 80 pour cent dañ ko rem remanié looloo tax euh, yow muy di Mbaye Babacar ñu dugal la ci biir euh, bureau bu bees boobu ñu la ciy félicité ne loolu rek day wane liggéey bi ngay def ci làmb foofu sa Jurbel ñu bàyyi la ci xel ba boole ci ci bureau bi ñu fàttali ne premier vice président moom mooy Etienne Ngom deuxième vice président bi Adama Gakou Moussa Ndiaye moom mooy troisième vice président bi quatrième vice président bi moom mooy Ablaye Faye léegi mbay ñu lay félicité ne la xanaa léegi maire bi moo ci des <laughs> am na fitam de kii luñ ko waxal boo xam yéen am na fit xeex maire bi de waaye maa lay voteel bu baax xam nga Olof Njaay dafa ne dëkk boo fa dëkkee da ngay fexe ñu ràññee la ci dëkk ba te it ngay bokk ci ñuy jëmale dëkk ba kanam loolu moo am solo kon nag yaakaar gi ñu am boo boole ma ci bureau CRG bi yàlla na ko yàlla mottali ci barki Seydina Mouhamed amiin amiin amiin noonu la ñuy def dañuy daal di jubal ci nga xam ne mooy journal record la mu ci xëy un combat royal pour l'autre Boy Niang Ama Baldé nouvelle locomotive de l'arène bay Babacar suñu euh, record moo bind loolu nee na ñaar ñi di euh, Boy Niang ak ki nga xamante ne bii moom mooy Ama Baldé ñaar lan ña nga xamante ne bii ñaari xale yu xew lan nag mm-hmm. ñaari xale yan ñaari xale yan la nga xam xamante ne bii ñi ngi def li nga xamante ne bii mooy tendance wante ñi ngi def buzz ndax ku ci nekk da nga am adversaire de taille ba nga xam ne ku ci nekk yaa ngi ci contrat yaa nga xam ne ñëpp ngi lay xaar. dëgg la Mbaye Babacar loolu la journal record bi nee ne deux contrats pour l'un un combat royal pour l'autre Boy Niang et Ama Baldé nouvelle locomotive de l'arène nee na ñaar ñi daal instant yi ñoom ñooy buzz fi ñoom ñooy yóbbu euh, euh, wax affaire arène làmb ji ñoom ñoo ko yor instant bi nee na nag ñoom ñaar ay mbër yoo xam ne ni seen palmarès rek day forcer le respect ñoom ñaar ay euh, mbër loo xam mbër yi lën yoo xam ne ni dañuy drainer ay monde dañu bëri ay supporters jour bu ñu bëri arène bi day fees dell mais également nee na seen combat day neex bu ñëwee dañuy bëre daan ñibbi ñaari mbër la ña nga xamante ne bii dañoo mën ñaar yi dañoo mën a bëre dañoo mën a bàkku buñ suñu bëree mu neex suñu bàkkoo mu neex ba pare nag ni ko Kébé de waxee nekk ay bandi géew ku ci nekk sa stratégie bopp nga yor ku ci nekk waaw ku ci nekk sa feemu bopp nga yor boo ñaar buy bëre ak yow day def ay déplacement latéral yaakaar ne da koo ragal. yaakaar da laa ragal. Mm-hmm. te ragalu la faay boo def mu exploité ko daan la ama mbër la ma nga xamante ne bii bu arbitre soufflé noo mën di toll ci sa kaw la jëm. Mm-hmm. daa ñeme borom fit la sëll bu ndaw ba ca Pikine la ca noonu la ñu dem drapeau du chef de l' état présélection nag commencé na Mbaye Babacar di leen fàttali ca kaw Kaolack lay amee du 28. au 30 bii di allah. drapeau chef de l'état di jogante ba nga xamante ne bii Assane. Mhm. Euh, raison yëpp ñoo fay daje ku ci nekk andi sa juróomi mbër ñu jogante ci seen biir di fàttali na drapeau chef de l'état nag par catégorie la. Euh, war a am incha allah foofu ca la Ndangaan dëkku Saccom bi Diop suñu papa war a am le 28 jàpp le 30 mai incha allah ñu ne raison yi nag war nañoo war nañoo def amal li nga xamante ne bii mooy seen ay présélection incha allah ci diggante le 13 jàpp le 24 mai. dëgg la Mbaye Babacar drapeau du chef de l' état euh, benn drapeau lutte simple la bi nga xam ne ni CNG moo koy organiser chaque année drapeau bi nag comme ni nga ko waxee région yi ñoom ñoo koy bëree ku nekk dangay indi sa équipe ñu compétir euh, dernière euh, édition bi mbuur moo ko tëg kii woon moo ko organisé woon mhm. Thiès moo ko jëloon ci Dakar door ko cinq zero donc journal suñu làmb bu ñëw tey nee na présélection édition bii di ñëw mu ngi commencé di 13 au 24 mai deux mille vingt et un ñu fàttali ne comme ni nga ko waxee euh, sa kii boobu euh, drapeau boobu ren mi ngi am ci Kaolack di vingt huit au trente mai. di fàttali drapeau chef de l'État bëri na ba nga xamante ne bii amul jàpp ngemb. amul jàpp ngemb amul jàpp ngemb ba pare boo defee trois appuis da ngay daanu. ñaari mbër trois minutes trois minutes la ñuy bëri. bu ñu bëree trois minutes mi temps. bëriwaat 3 minutes mu jeex ku am avertissement ci diggante bi ñu jox sa morom ndam. Mm-hmm. règlement la ñu jël foofu lañu koy def pour que bés bu ñu demee ci compétition euh, africaine yi euh, mbëru Sénégal yi duñ am problème pour adapté wu par rapport ak règlement boobu. moo tax mbër ya fay mbër ya fay fël mën nañoo jàpp ñooy mbër yi dàq bëre ci làmb ji. ay la ñuy doon waaw ay ndaanaani làmb la ñuy doon. mën nañ cee jàpp ko mel ni Yaxya Diop Yékini jël na drapeau chef de l'état gis nga ko ba mu ko jëlee ba noppi gis nga ko fa mu mujjee nekk na fi roi des arènes ak yeneen mbër ya nga xamante ne bii macha allah ban fa jógee ca la ñu lukkeeku. rëg jaar na fa. Uh-huh. ay mbër yu bëri foofu lañ jógee. Franc jaar na fa. mais lukkeeku mooy la. lukkeeku mooy fa lañu ñu ay olof yu xóot la de yaa ko wax. waaw fa la ñu fëlee ñoom. mu ngi noonu maa ngi leen di jaajëfal bu baax Assane mbay Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fës mbay looy tàggatoo xanaa jaajëfal ñëpp jaajëfal bu baax a baax waa Njaareem sama dëkk di leen ñaanal jàmm ak salaam di leen dig daje incha allah bu ci yàlla àndee suba ci beneen revue de l'arène mais comme d'habitude chaque jour rek muuraay bi fa ko tegoon bu ko teggi baax na bu koor gi jeexee na continuer Assane Waalo ndax maa ngi lay remercier di remercier Mbaye Babacar di remercier waa Linguère di remercier Yacine Fall équipe bu Leewtoo TV yëpp di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. mooy noonu nag di leen jaajëfal bu baax mbay kontaan naa ci yow trop t'inquiète pas soo ma jëlee tonu kol dinaa xëy chaque jour di la kontaanee ah borom CG bu Diourbel kontaan naa ci yow trop Mbaye Babacar di leen jaajëfal Bilal maa ngi lay bëggee bu baax Yacine Fall Bamba ji kontaan naa ci yow trop di nuyu borom kër gi. Pape Thialis Faye di ko nuyu bu baax a baax nee naa lépp moom la moo jiite mbaboor bi mooy suñu papa ñun ñëpp jiital ko di ko ci ñaanal jàmm ju baree bari su amee jàmm rek ñun ñu ñu jàmm ay poosam daal di dell a fees ay ah, poosam war naa fees dell ndax suñuy poos fees Olof Njaay dafa ne teglante bu jubee ba jiitoo dëngul te daanuwul ba jiitu moo jub kon nag macha allah yàlla yàlla dolli jàmm boo amee jàmm rek ñu am jàmm jàmm mu ngi noonu fay biram pend waagaan ah yàlla jàmm sama buur la mu ngi noonu kebe bëgg naa ci yow lool lool lool Mansour Fall kontaan naa ci yow moom moo sama chauffeur bi loolu dawul la bëgguma maa ngi noonu dama leen di jox dig daje ëllëg ci beneen bi incha allah jërëjëf